dikkati na dañu ne woon day bu dëgg yàqoo maa fe dootul neex tribune yéene kaay ne ma waaye bu poñ sa yàqoo nag diggante gi Idrissa Seck ak président Macky Sall nañ ko wax daanaka jeex na clash bi daal seen diggante daanaka kenn mënu ci dara yéene kaay dee média bi ne ma seen diggante bu doonub sëy la naka ñaan baat am na ci de maye ak ñàkk maye daal moo ci am waaye daal am na ci diggante bi koo xam ni daal nee na mënta ànd ak moroomam coow li coow li mooy lan moo leen jotale tribune yéene kaay ne ma xanaa ambition ah Idrissa Seck day topp Macky di na lenn loo xam ne Idrissa Seck bëggal na ko boppam yéene kaay bi ne boo déggee ma ni la clash bi mënta ñàkk fi ak 2024 lu gémmiñ mënta wax xel a koy dox cay 2024 bàjjo bi yéene kaay bi ne ma du fi fekk ak mburoog soow dana fekk poñ sa bi daal di fuur fa yàllaahu ku koy jëfandikoo xam tribune ne en tout cas la ma xam te mu leer moom moo di diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall moom jeex na abana le quotidien le quotidien daal di may xamal ne en tout cas waa APR de seen lañ ci wi moom bawun ko kenn sàq mi mu jàll rek président Macky Sall ci nii mbaa ci nee day doon candidat Mbaye Ndiaye directeur bu bu APR daal di xam ne ci yéene kaay bi président Macky Sall ci mooy sunu candidat obligation la moom président dañoo weñ loxoom na déglu parti bi la wax mu daal di koy jëfee amul benn plan B amul plan C amul plan X sunu plan benn la te mooy président Macky Sall te kon mooy sunu candidat 2024 mbaa du troisième mandat ngeen di waajal en tout cas moom Sall ngaari bu dee bañ naag ba gën a day dawul yoole ci noggatuñu dawul yoole it ci nappaaje ñu waaye dawu ci yoole it ci dóor ñu ban ñuy toggali xewer buñ sukkandikoo ci Ousmane Sonko li mu wax ci le témoin yéene kaay xamle na moom jiital Pastef ne président Macky Sall day daal dinay jébbal siège yu état major bu gendarmerie ba nekk ca centre ville benn jaaykatu arme israélien bu nuy wooyee Gabi Peres ñoom Peres ñoo ñee daanaka luy suuf fii ci Sénégal ci Ndakaaru jël nañ ko lebal nag président maki Sall en retour téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom benn milliards yoo xam ne lépp lépp président maki Sall ngànnaay la koy jëndee tribune yéene kaay na ko tegal foofu sa loxo maa ngi ñëw booba suufas géeja waaye ma ngay jeex ñuy établissement Bay di sëy di yokk ay parcelles sa cité Ndiobène daanaka askanu Géejawaay la ñu toog ndax seen suuf ma ngay jeex yéen kaayub dee média bi ne ma waxalit ca Papa Alé Niang jëlee nañu ko rëbës yóbbu kasob Sébikotane Les Échos yéen kaay ne ay avocat am kay ña nga yuuxu nee ñu nag dañoo bëgg gàntal leen ci gis Papa Alé Niang yomb ci ñoom source su daal di may xamal ne boobu day taskatu xibaar yi ngemb nañu takku nañu doonu benn sayub naanaa fas yéene nag defante nguur gi ci jàpp Papa ale Niang mii Mamadou coor bu Corée daal di xamle ni su ma doon Papa Aly Niang it la mu def laay def rek kenn mënta xalaat gannaaw 2004 la amoon ci réew mi fukki at ak juróom ñett amati ci mim réew ñuy jàpp ay taskatu xibaar di tëj am nay information yoo xam ne dëgg la bu dee dafa sensible mën nga koo denc waaye nag tuñ tuñal yi ñuy def taskatu xibaar yi moo a dakk libération yéeni kaay ne ma ki tey aljuma daañu génn ci mbedd mi Ibrahima lii sa fay ne bés bu yàlla sàkk daañu amalub action le vrai journal ne li coow li mooy xanaa Papa Aly Niang la nguur gi bëgg def nagu saraxam waaye nag dëgg-dëgg moom Ousmane Sonko ci boppam boppam moo njëkk yor rapport d'enquête interne bu gendarmerie gi te moo ko njëkk wane tey Ousmane Sonko mi ngi ci biti Papa Alé Niang ma ñu yab jël dugal ci kaso du yoon moom Sonko libération yéene kaay xamal ma ni la mu waxoon ci plainte Serigne Bassirou Gueye def na ko critique yéene na ne ma moom Ousmane Sonko dey xamle na ni président Macky Sall nag ab listam la yor liste goo xam ni ñamu war a tàbbal kaso ca la ñu nekk ñoom ñëpp Ousmane Sonko ne ay taskatu xibaaran ci ay politiciens ñoo ca jiitu ak yeneen ak yeneen Ousmane ne métier boo làmb ci réewum Sénégal na yéen a jàpp fa ñenn ñi 24 heures yéen a kaay daal di may xamal ne Ousmane Sonko yi daal dinay xamle ni daanaka suufuk Sénégal leen mu jeex te kenn du ko jeexal ku dul président Macky Sall Sud Quotidien daal di xamle ni son ko day ca mu nekkoon ci wili pande président Macky Sall ak waxal ko ay jëfam yu ñaaw ci réew mi jógu ca Omar Sow conseiller spécial bu président Macky Sall ci turbine yéen a kaay mel ni ko daan koon son ko ndax yow mën nga noo may saa si tembe nag xam nga ni ñu bëri gëmatuñ la ndax njombe gi nga xam ni def nga ko askan wi ñu bëri déglootuñ la moo tax Serigne Bassirou nii coow li coow li mooy lan la waxoon def ko dangaa lank ngir satal sa bopp wala it dugal sa bopp muy test ADN bi tey jii nga xam ni askan wi xam nan la ngay daat nga bëgg fee génn yeneen i coow duñu ko nangu manipulation bi nga nekkee nang ko ba Omar ay wax de Omar ni ci état de droit la ñu nekk kàddu Ousmane Sonko yi na dakk na dakkal procès bi nga xam ni bëgg na koo yeexal bu nekkee dafa am ay preuve taxewu ci laalewu ci na ko génnee mooy dëgg su ma président Macky Sall ma nga naqar lu ñaawteef yi nga xam ne ak métit ña ngi koy teg soxna yi l'indépendant yéene kaay ne président Macky Sall kay sàkku gi ni sàkku soxna yi ak xale yu jigéen yu ndaw yi leneen a dakk tribune yéene kaay ne ma boobu ca l'hôpital principal ña ngay sàkku nag demuk directeur ba le témoin yéene kaay ne ma campagne bi nga xam ne jagleelun ko lenn lu dul njaayum gerte gi baykat yi nee ñu juróom fukk ak juróom yi nga xam ne moom la nguur gi proposé nanguwuñ ko duñu ko def tey duñu ko def ëllëg l'enquête quotidien daal di may xamal ne or wi andi gene ak jiixi jaaxa ci réew réewum Sénégal ay milliards la ñu dugal ci or bi waxtu woowu ñooy dëkkee ca tund ya dund ñàkk goo xam ni maar day taali Birahim Seck daal di xam ni injustice bi nga xam ni génnee nañ ko bëccëg ndara kàmm boo moytul nag mën naa indi ñàkk dal ca fa ñuy génnee or wi moom njiitum réew mi président Macky Sall sàkku ci premier ministre mu daal di liggéey compagnie yi ngir nag dëgg-dëgg leeraange daal di cay am l'info yéene kaay ne compagnie bii di Air wax ci jotulam bu mu waroon def ay vol direct léegi ay escale la koy def di dagg-daggee askan wi seenug dem ak dikk nañ ci wax bés bi le jour daal di xam le ni Qatar it lu ñu war a wax la de ndax nag équipe nationale bu réewum Sénégal téeméer boo jël juróom benn fukki ña nga wéeru ca Sadio Mané Sadio Mané ci boppam ñaar fukki but ak juróom ñaar dugal na ko ci équipe bi fukki passe ak juróom yoo xam ni tax na but am mu dugal ko ci Aliou Cissé tey jii la ñuy xamal suñu liste gaynde yi laataa loolu Tribune Sport daal di may xamal ne Aliou Cissé day ciy mbégte la koy defee tex tex maree yokkal nañ ko salaire am bés bi le jour ne ma ñaar fukki million ak ñaar ak moom lay fayeeku moom Aliou Cissé Tribune yéene jeexal ak man ma xamal la njombe la am ca jokkul njëwrin ca Kébémer ataay la doon naan wër gaz wa ca la gaz wa daal di kalaatee seen kaw ñetti nit daal di cay ñàkk seen bakkan daar daar bokk na ci ñoom ab liir boo xam ne da doon nàmp ak lu mën a am mbokk yi nañuy fagaru tey ñaan jàmm tey ndoog jàmm tomb bi ñuy fàttalante mooy suuf si nuy dox ci kawam nga xam ne lu adduna yaatu yaatu boo demee suuf sa nga fay fekk loo fa mën a def it ci kaw suuf si nga ko defoon xëy na xamuñu leen ne suuf soosu day nekk seere bu ëllëgee loolu mi ngi ci alquran ida zulzilati l ardu zilzalaha wa axrajati l ardu atqaalaha wa maa laha saa bu ñu jeqee suuf si jeqewaat ne ko moom lii nit ki xool ko ne pat suuf ne diw mi moo ko moo jóge fii dem réew sàngam bañ jàpp ne bu ko defee fii danañ ko xam mu génn réew mi te xamul ne ci kaw suuf si lay wàccaat bu yéegee fii wàccaat ci meneen réew ci kaw suuf si lay yéeg te suuf si moom yàlla da ko li ci taqu li ci taqaloo wut géej gee di tàggale te géej gi ci kaw suuf si la taxaw kon fu ko waay mën a defee suuf da day seere bu ëllëgee kon boog jéego yi ñu dox ci kaw suuf yàlla na yàlla dimbalanu ba lépp di doon lu baax ak lañ cay wax la ci gën a am solo mooy dox dem waaj jóg julli bu ma nee ca am ci jàkka ja baax na su ko munta am nga woo ña fa dend ngeen bokk ko julli yooyu jéego ku ko suuf seereel lu bari mën naa rafet njort ak di dox jëm foo xam ni fii danga nga faa dégg ab safaan nga war leen koo tere ji al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar di dox ci loolu kese kese kese loolu it seere sa cay nekk doo ko siq ak kenn yaa koy moomal sa bopp na nga moomee lee ma weesu léegi kon boo kenn ku nekk mën naa xam bu jógee fii jéego yi muy dox jëm ca ba xam bëgg naa bu ëllëgee bu ko suuf di seere mu nangu ñëpp dégg waaw wala déet euh, yàlla na yàlla suturaal